Okay, Alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci suñu téere bi ñuy topp duy minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah ñu yegsi woon ci li ñuy tuddee ahkaamul janaiz mooy atte yi aju ci ay néew nu ñu leen di taxawee tey jii mooy nekkoon dimanche di le 16 janvier ci 2022 di tombe ak le 13 ci jumada saniya ci 1443 ñu ngi doon topp ahkaamul janaiz ba yegsi woon ci fukkeelu bunt bi ak bind bi ak juróom-ñeent mooy alfaazu du'a ana yan wax ci wàllu ñaan moom la ñu rot jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu gannaaw bañ mujjee jël man dufina walam yusalli alayhi am boobu jànguñu ko kon boobu la ñu war a jël tey waaw kon ñu ngi war a jël tey man dufina walam yusalla alayhi képp koo xam ne dañ koo suul ca kenn julliwu ko su dee mbokk yi bokk nañu gis daf ne man dufina walam yusalla alayhi sulliya alayhi wa huwa fi qabri képp koo xam ne dañ koo suul te kenn julleewu ko ku mel noonee day dañ koy dem jullee ko ca xabroom ba isolla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam njëree kat julli na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala allati taqumu al masjid mi ala ala allati tuqimu al masjid te ka nga xam ne moo doon bale jàkka ja ba'da an dufinat wa salla ashaabuhu xalfa gannaaw bañ ko suulee ña nga xam ne ñoom ñooy sahabaam jullee ca gannaawam kama yusalla ala alghaib walaw ba'datil masafa comme ni ñuy jullee néew bu fi nekkul ak lu mu sori sori place ba néew ba nekk isalla sallallahu alayhi wa sallam ala najasi najashi ndax yonent bi kat jullee na najashi wa huwa fi labasa fi labasha wa rasulu wal mu'minuna fi lmadina madinatul munawwara ca yonent bee ci sahabaam ñu nga ca madina kon mbokk day wax fii rek ki nga xam ne ci njuumte dañ koo suul ca kenn jullewu ko ak a bëri armeelu yoof xam ngeen ni mbooloo moom nga xam ne ñoo takku di suul niiw yi fan yi sax gëñ na ñoo daje waaye léegi la ñu am quarante néew léegi-léeg ñoom lu ko ëpp loolee hôpital yi muy jóge da ngay gis ne la ñu daan def te di ko continuer def ba léegi mooy dañuy dajale nii ba mu bari rek buñ demee gas bu mu xóot ñu dugal suul jeex na loolee mbokk la ñu def armée lu yoofu gii te ñu ngi koy def ba tey loolu nag daa nekk ay njuumte képp koo xamee ñi ni nag xam nañ ni ab julit la suul nañ ko ca kenn julleewu ko war nañoo dem jullee ko ca xabroom ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon na soxna soo xam ne moo doon bale toujours jàkka ji mu laajte ko bis ñu ne ko daa faatu mu ne lu teewoon ngeen wax ma ko fuñ ko suul saxaaba yi yóbbu ko fañ ko suul lum ñuy jàngal yonent yàlla muhammad xamuloon kumpa am déet bu xamoon kumpa ndax dana taxaw naan ana soxna si ndax dana taxaw naan yóbbu leen ma fuñ ko suul déedéet yàlla rek moo ko daan wax mu wax nit ñi waaye kumpa yàllaa ko xam bañ demee yonent bi taxaw saxaaba yi taxaw ci gannaaw mu julleew loolu it borom xam-xam yi yoonal nañ ko ci ne mënees na koo defal nit doonte ne am nañ juyoo ci diir ba ñaata lay doon waaye ala kulli xaal mënees na koo def beneen bi mooy julli koo xam ne fam nekk kenn julliwu ko fa loolu it lu ñu yoonal la mi ngi noonu doonte ne miinuñu ko ci mazhab maalik yi tasaaroo suñ gox yi waaye bépp doomu jullit bu ñu yégee ne faatu na ci kenn julliwu ko su boobaa mënees na koo julli boroom xam-xam yi am nañ sax tuuti juyoo am na ñu ne même ku ñu jullee ba pare sax mënees na koo julleewaat looloo tax léeg-léeg ay kilifa gu mag faatu ci Arabie Saoudite ñu jullee ko ci jumaa yu bari am ñoo xam ne dañ koo teqale ñu ne Najashi dafa taxawu woon lislaam nekkoon kilifa diine looloo tax yonent bi jullee ko ñu ne kon du ne bépp jullit bu dee rek jullee nañ ko nañ ko jullee waat waaye koo xam ne yëg nañ ne am na taxawaay ci diine ku mel noonu bis bu deeyee dara nekkul ci ñu jullee ko ci place yu bari loole mbokk kon ak juyoo la gu am ci seen biir waaye almuhim nit ki mën na yëg ne faatu na ñu taxaw imam jiite mbooloo mi nekk ci gannaawam ñun ñépp ñu yéene ne diw la ñuy jullee donte ne ne néew bi nekk fi loolu mi ngi noonu amma bu dee ne dañuy jël fukkeelu bind bi ak juróom-ñeent alfaazu du'a ana yenn façon waxin ci wàllu ñaan lañu gis yonent bi daan ko ñaan léeg-léeg ruwiyat anhu sallallahu alayhi wa sallam alfaazun adiya kasira soloo nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay façon waxin ñaan yu bari minha ma yali manes na caa jële lii wa ayu lafzin usticmala minha ajzaa waaye bépp ci façon wax yoo xam ne dañ ko caa jëfe loolee dana doy bokk na ci lu yonent bi daan wax allahuma inna fulanan ibnu fulan fi zimmatik wa habli jawaarik ey yàlla diw mi damay nga tudd turam moor njaay mi doomi nangam loole mi ngi noonu mënees nga koo wax jox turam ak turu baayam te xam ngeen ne arab yi ñoom daanaka ay sant xamuñu ko woon ku nekk sa baay rek lañ lay dàkkantal omor ibnul xataab abdullah ibnu omor ila axiri kon diw doomu diw mii day mi ngi tey ci sa kóllëre goo xame ni nii dugg na ca ak la nga xam ne mooy lënkale goo xam ne lënkoo na ko ci dëkku si ne ak yow muy alxablu daa di ko sorewul ak buumu kóllëre goo xam ne tey jii ñëw na fekk si la ay yàlla faqihi min fitnati alqabr wa azabi nnar yàlla na nga ko fegal mbugalu bàmmeel fitnay bàmmeel ak mbugalu sawara anta ahlul wafai wal xaq yow yaay ki gën a yey di matal ay dig yow yaay ka gën a matal ak dëgg allahuma faxfir lahu warhamhu ay yàlla yàlla na nga ko jéggal yërëm ko fa innaka anta alghafuru rahim yow kat yaay jéggale ca yërëmaate allahuma agfir li xayina wa mayitina yàlla yàlla na nga jéggal ñiy dund ci ñun ak ñi dee ci ñun wa saxirina wa kabirina ak xale ya ca ñun ak mag ya ca ñun wa zakarina wa unsaana ak góor ña ca ñun ak jigéen ña ca ñun wa xaadirina wa gaibina ak ñi teew ci ñun ak ña faddu ci ñun ñi fi nekkul allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal is ahyihi alal islam e yàlla koy dundal ci ñun yàlla na nga ko dundal ci lislaam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman képp koy faat ci ñun yàlla na nga ko faat ci ngëm allahumma la tahrimna ajra e yàlla yàlla boo ñu xañ yoolu taxaw bi ñu koy taxawe wala tudilluna baada waaye yàlla boo ñu sànk gannaaw looli rot na ci ñaan mu ne wa in kaana almayitu say sabiya su dee ne nag dafa nekk ab xale bu juddu su boobaa buñ koy ñaanal bokk na luñ jële ci yonent bi mu ne allahuma ijalhu li walidayhi salafan e yàlla yàlla na nga ko def mu ñel ab waa waajuram la nga xam ne mooy dawal mag ñi dañ koy wax yàlla na ko yàlla def dawalu yiw muy dawal boo xam ne jiital nañ ko ci tuyaaba ci muñ gañ muñ déeg seen doom googe wa zuxuran yàlla na nga ko def ab denc boo xam ne da nga leen koy dencal ba tuyaaba joojee dara du ko yàq waaye yàlla na ko def fartan moom it mu doon koo xam ne kuy jiitu ay waajuram lañu faratan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xale yi majeurugul yawmal qiyaama yàlla da leen di wax dem leen dugg aljanna suñu demee ba buntu àjjana la yàlla ñun nag duñu dugg tànk suñuy waajur ñëwul waaw kon fa al farat mooy ka nga xam ne moo lay jiitu di la xaar wa saqil bihi mawazinahum e yàlla yal nañ ci diisal seeni balance wa azim bihi ujurahum yal nañ ci màggal seeni pay wala taxrim na wa iyahum ajrahu yàlla yàlla boo ñu xañ ñun ñii koy jullee ak ay waajuram la nga xam ne mooy pay ga wala taftina wa iyahum baadahu yàlla boo ñu fitnaal ak ñoom gannaawam allahuma alxiqhu bi saalixi salafi almuminin te yàlla yal na nga ko boole ca ña gën a yiw ca la nga xam ne mooy jiitu dawalu julit ñi fii kafaalati ibrahim ña nga xam ne yonent yàlla ibrahim moom la leen yàlla dénk ñu yor leen ca barzaq wa abdilhu daaran xayran min daari ca nga wuutal ko kër gu gën këram wa ahlan xayran min ahli nga wuutal ko njaboot gu gën njabootam wa aafihi min fitnati alqabr yàlla na nga ko musal ci fitnay xabru wa min azabi jahannam ak azabi jahannam wante ne lu bari ci lii des na ko jagleel ñaan ca mag ña almuhim mbokk lii ab junj la bu muy junj waaye ñaanum néew moom la ko ëmb mooy yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm gannaaw ba it loo ca mën a teg nga xam ne teg nga ko ca waaye daanika lépp génnul allahuma ixfir lahu warhamhu yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm mi ngi noonu loolee kon moo aju ca ñaan ga doonte ne ni suñu jullee néew ba pare dees na ko gunge ca loolu it mbokk daa bokk ci juróom benn àq ya nga xam ne nii julli yoral na ko moroomam su ngànt amul mooy bu dee mu gunge ko moom lay wax ne tashyi'ul janazati wa fadlahu gunge ab néew ak ngëneel ya ca nekk min sunnati tashyi'ul janaza bokk na ci sunna gunge ab néew wa huwa al xuruju ma'aha te mooy nga génn ànd ak moom wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ndax la yonent bi waxoon ni udul marid seeti leen ña feebar wamshu ma al janaza dee leen dox ànd ak néew ya tuzakkirukum al axira ndax loolu dana leen fàttali al axira wal isra'u biha nit ki faatu it war nañoo gaawe jébbal ko boroomam li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asri'u gaawaleen néew yi fa in taku saaliha fa xayrun tuqaddimuunaha ilayhi su dee ne moom ko baax la ci aw yu ngeen ko jëmi lu ngeen gaaw moom xeeb na ko wa in taku siwa zalik su dee ne nekkul loolu ay nekkul ku baax ku bon la fa charron tad'unahu an riqaabikum kon ku bon ngeen di teggi seeni loos kon kay gaawe leen ko ngeen yóbbu ko ngeenee ngeen teqali ko ak moom loolu mbokk kon gaawe ga it dàqantiwul ak ñu jox ko àq yañ ko war a jox yépp te bokk na lum la ci jàngaloon bii paase nañ ko yëgle ñu ko war a yëg nañ ko sang nañ ko taxawu sang ko jullee ko loolee da ngay gis ne dàqantiwul ak gaawee ko mi ngi noonu li ñuy bañ rek ñi tey ay néew ay fannaan dañuy xaar ma sàmb ak ma demba ila axiri kama yustahabu lmashyu amaamaha sopp nañ booy gunge ab néew nga dox ca kanamam إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ndax kat dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon dox di jiitu la nga xam ne mooy néew ba allahuma am na boroom xam-xam yu teqale mooy bu dee ne da ngay dox nga jiitu néew bi mooy la gën waaye bu dee da ngaa war nga dox ca gannaaw néew ba mooy la gën mi ngi noonu amma fadlu tashyiic buñ la doon wax nag ci ngeneelu gunge néew faqad qaala fiihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi day daana wax man ittaba'a janaazata muslim imaanan waxtisaaba koo xam ne topp ne néewub julit ànd ak ngëm ga nga xamee ni nii moo ca aju ak yaakaar pay ya ca yàlla jige wa kaana ma'aha hatta yusalla alayha mu ànd ak moom ba ñu jullee ko wa yufraga min dafniha mu xaar ba ñu pare ca suul ga fa innahu yarji'u min al ajri bi qiraatayni ku mel noonu day dana delloo ak la nga xam ne mooy ñaari qiraat ca loolu yonent bi alayhi salaam mu ne kulli qiraatin mislu uhud bépp tuyaaba ca ñaari tuyaaba yooyee daa mel ne montagne ba nekk ca madina ñu koy wax montagne uhud wa man salla alayha summa rajaa qabla an tudd fana koo xam ne nag da ngaa fekk julli ga rek dem nibbi fa innahu yarji'u bi qiraat ku mel noonu day deme ci benn montagne ci tuyaaba waaye mbokk loolu da ngay gis ne ci yaakaar ya gën a màgg ca la bokk bal dañuy gis ne abdullah ibnu omar toog na ci jàkk ji ak abi hurayra benn abi hurayra nettali xadis bi ibnu omar na ko waaw yow li yaa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibnu omar yónni benn xale bu fa nekkoon duggal laajal ma yaay Aïcha ndax xadis bi mës na koo dégg bi loolu amee bi xale bu dellu see ne ko aha kay yaay Aïcha nee na noonu la ko yonent bi doon waxe Abdullah ngi yoroon ay xeer ci loxoom ni mu sànni ko mer mu ne cey ñaata lañ perte ci ay tuyaaba te mooy xéewal googu moom xamu ko woon keroog la koy xam waaye mbokk xoolal nit ki dee nga sol sa daal dem fekkee jullee ga rek allah xe ngi lay xaar tuyaaba ju toll na montagne Uhud te suñu borom mu ne yawmal qiyaama ku jëf tuyaaba toll na zarra zarra mooy pënd poussière bi gën a tuuti da ngay gis payam yow nga am lu toll na montagne Uhud boo demee fekkee suul ga am ñaari montagne Uhud mu ne nag ñaata lañ perte ci ay tuyaaba gis ngeen loolu kon mbokk mooy aju ci gunge ab néew amma bu doon dañoo dem nag ba ca armeel ya bokk na loo xam ne nii dañ ko war a def mooy def nahu ñaar fukkeeli mbir ak ñaar yi ñuy defal ab néew mooy suul ko dafnul mayte wa huwa muwaaraatu jasadihi kaamilan bi turab ah maa yukra naam naam naam jazakallahu xayran kon ñi ngi ci ñaar fukkeelu bunti ñaar fukkeelu bind bi ak ñaar ak benn ak benn mooy maa yukrahu inda tashyi ana la ñu sib ci ñu bañ koo def heure bu ñuy gunge am néew yukrahu xuruju nisaai ma al janaza sib nañu jigéen ñi génn di ànd ak néew ba li qawli umu atiya radiyallahu anha nuhiina an an nattabi al janaiz walam yuzam alayna yonent bi alayhi salaam day daanañu tere ñun jigéen ñi ñuy topp néew yi doonte ne nag doguwu ci woon ca lim na doguwu ci woon day wane ne kon jigéen mu bañ a topp ab néew moo gën ca moom naam allahuma bu ko toppoon deful lu xaram loolu moo tax ba borom xam-xam yi dañuy waxit ne su dee ne daa dëppoog néew ba dara nekkul ci ne mën naa toog fekk jullee ga waaye bu mu génne këram dem di ko toppi rawatina ca armeel ya kama yukrahu rafu sawti indaha bi zikrin aw qiraa aw xayriha noonu lañu sibee di yóbbu ab néew boole kook ay sikkar comme niñ ko miine ci gox yu bari ci Sénégal ay gis bu ñu yóbbu néew dañ koy boole ak laay laay bu dul jeex ak i sikkar yu dul jeex sib nañ loolee ñuy gunge néew di zikr wala di wax ay ay ay ay jàngum alquran is kaana ashaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam yakrahuuna rafa sawti inda salaas sahaaba yi day dañ doon sib nit ki di yëkkati kàddoom ci ñett inda al janaiz wa inda zikr wa inda al qital dañ doon sib bu ñuy gunge néew ñuy yëkkati ay kàddu ci zikr la ak lu mu mën a doon siboon na nit buñ dajee na doon ca jàkka ja loola feñeen nit ki def zikrullah di yëkkati kàddoom loolu siboon nañ ko bu ñu roofaloog yéefar yi di xeexit siboon nañu nit ki di yëkkati kàddoom ci ay zikr loolu mi ngi noonu kama yukrahu ljuluusu qabla an tuuda al janaza min ala al a'naaqi yow mi jiitu woon néew ba it dañuy bëgg ngalawaay boo demee bul toog lu dul ne néew ba dañ koo teg ci suuf te li mu wax it ci kaw loos ya la nga xam ne mooy sunna ci néew it mooy ñu yëkkati ko teg ko ci loos yi ba nga xamee ne mbooloo mi fu ñu toll di gis néew bi ak lu ñu bari bari mi ngi noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iza taba'tumu janaza e waaye su ngeen toppee am néew fala tajlisu xatta tuudaa fi l ard bu leen toog lu dul ne dañoo teg néew bi ci suuf allahuma lu dul it bu la yàlla dafee nga dem ci armeel bay bëgg a toog it nga moytu sa kemtaleel kattan di toog ci bàmmeel ndax loolu it dafa bokk ca la nga xam ne dañ koo tere ñëw nañ ci armeel yi la nga xam ne moo ca des mooy defnul mayit wa huwa muwaraatu jasadihi kaamilan bi turaab la nga xam ne mooy suul am néew te mooy fexe ba nëbb yaramam yépp ñu nëbbe ko suuf loolu day fardun kifaaya la dafa nekk farata boo xam ne mbooloo mi yépp la war li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam aw li qawlihi taala summa amaatahu fa aqbara suñu borom nee ne doomu aadama bi mu ko bi mu ko faatee dafa dogal ñu war koo dugal ci xabru te loolu da ngay gis ne bari na sax ay bàyyi ma yu koy jëfe yoo xam ne bu seen mbokk dee dañ koy suul fa aqbarahu mu ne suul ne boobu it lahu ah lahu ahkaamun minha am na atte yu ca aju ca bokk na ca loolee an yu'ammaqa al-qabru ta'miqan yamna'u wusul as-sibaa'i wat-tayri ila al-mayt mooy war nañoo xóotal armeel ba war nañoo xóotal bàmmeel ba xóotal goo xam ni dana tax ba njaa àll yi bukki yaag till yaag ak picc yey lekk medd duñu mën a yegg ci moom wa yaxjubu raihatuhu an taxruja fa tuziya dana taxit ba bu demee ba soppeeku xet du génn ci moom di lor ña nekk ca kaw suuf li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ihfiru wa amiqu wa ahsinu yenent bi keroog ca xare Uhud gis nañu ne mi ngi naan sahaaba yi gas leen xóotal leen rafetal leen ni ngeen di gase wadfanul isnayni wa thalaasa fi qabrin wahid man ngeen a boole ñaar ba ñett ci benn qabru fa qaalu man nuqaddim ya rasulullah ñu ne ayyum yàlla yónni ana ku ñuy jiital jëkku koo dugal qaala qaddimu aksaruhum qur'anan mun a jiital leen ki ëpp ci ñoom lu mokkal al qur'an te booba it xare uhud la rey nañ fa juróom-ñaar fukk ci sahaaba yi ca foofu ay xeer la gas benn bàmmeel rek problème la waxuma gas juróom-ñaar fukki bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen gas leen lu ngeen man ngeen di boole par deux par trois di dugal ci benn bàmmeel biñ ko laajee mu ne xool leen ñëpp ñu ngeen di boole ku ngeen jàpp ne kii moo ëpp lu mu mokkal ci alxuraan ngeen jiital ko loolu déew nekk wane ngëneelu mokkal alxuraan donte ne yow mi fekk woon xutba bi paase it da ngay gis ne saxaaba ya seen mokkal ak suñu mokkal bokkul ñoom seen mokkal da doon ànd ak comprendre ko xam ko xam ko bu baax xam atte yi ci nekk yëpp looloo taxoon ñu amoon xam-xam bu toll ne lañ mokkal loolu mi ngi noonu amma ñaareelu mbir bi ñuy def ci suul néew xam naa bokk na ci rek ñu xam ne léeg-léeg am ñu yàlla nattu rawatina ci jamono yu jëkk yi ñu nekk biir géej am ko gaañu duñu am nuñ ko dencee ba yaram bi ba ñu soppeeku su boobaa it dañuy jël lu diis rek takk néew bi yoor ko ci ndox mi moom loolu mooy nekk bàmmeelam mi ngi noonu amma ñaareel bi mooy an yulhada fil qabr mooy xabri bi buñ ko gasee ñu daa di koy defal lëhd idil lëhdu afdal ndax lëhd boobu kat mooy la gën mi ngi noonu mi ngi noonu mu ne wa in kaana shaqu jaiz doon ci na gas ba mu xóot nga suul loolu dagan na li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam allahdu lana wa shaqu li gayrina yonent bi daana wax ne la nga xam ne mooy gas defal ko lëhd ñun jullit loolu moo ñu ñeel gas ba mu xóot rek nag suul ñeneen la ñeel waaye xadis boobee borom xam-xam yi dañ ciy wax ak ñàkk wéram mi ngi noonu mu ne wa lëhd huwa alxafru fi janibi alqabr al ayman wa shaq huwa alxafru fi wasati alqabr la nga xam ne mooy lëhd mooy dañuy gas bàmmeel bi ba mu xóot masalan bu doon dañoo gas tey jii ba mu mat lu mat un mètre quelque ñu daal di ci ndeyjooru xabru bi ñu daal di fay gas beneen pax boo xamee ne nii néew ba dana fa xaj nga xam ne bu ñu dugalee néew bi dañ koy taf ci biir pax boobee daal di am luñ ko baaree daal di koy suul ba nga xamee ne tey boo ñëwoon jam ab xeej ci biir xabru bi it du laal néew bi ndax néew ba ma nga ca roq ba loolu la ñuy tudde lëhd amaa bu dee shaq moom dañuy gas rek ba mu xóot ñu daal di koy suul doonte ne ne la gënoon a complet ci suul néew doonte ne bariwuñ jëkk a def fii rawatina armée lu yoo fii mooy bu ñu gasee ba mu xóot ñu gas ci biir li ñuy gas beneen paax loolu mooy shaq dugal fa néew ba am lu ñu teg ci kaw néew bi ba suuf bi du ca yegg ñu doog koo suul loolee léeg-léeg nga koy gis ci yenn armeel yi waaye loolu mooy la gën loolu moom mooy la nga xam ne mooy la gën mi nga noonu donte ne farata bi moom mooy nañ ko suul farata bi mooy nañ ko suul ak lu ñu ko mën a suulee mi ngi noonu kon ñetteel bi mooy yustahabu liman xadara dafna an yaxsuwa salaasa xasayaat min aturaab bi yadihi sopp nañu ci ki fekkee fu ñuy suule nga tibb ñetti tibb ca suuf sa ci sa loxo fa yarmiya biha fil xabru sànni ko ci xabru bi jëree nga bokk ci ñu suul sa bokkum julit min jihati rasil mayit nga defe ko ca bopp néew ba sotti ko ca côté bopp ba li fi'lihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zalik kama zakarahu ibn maja bi sanadin la ba'sa bihi mu ne loolu ibn maja solo na ko ci sukkandikaay hadis boo xam ne amul lenn lu ca luñ cay ayibal ñu ngi noonu wante ne xale yi topp hadis gis nañ ne hadis boobu bokk boole nañ ko ci hadis dayif yi waaye borom xam-xam yu bëri it sopp nañ ko ndax lañ gis lu bari ci ay magi sunna daan ko jëfee na doon imaamu ahmad la ñeneen ak ñeneen su ko defee soo ko deful nga xam ne defoo ko boo gisee ku koy defit nga bëgg koo nga bañ koo ayibal naam ñeenteelu mbir ba mooy an yadxulal an yudxalal mayit min muaxiril qabr ida tayassara zalik heure bu ñu doon dugal néew dañoo war a jëkk a dugal tànk yi mu commencé ca jeexitul xabru ba ñu doog koo tëral nag mi ngi noonu ci ko teg ndey jooram wa an yuwajjaha ila ila alqibla mawduan ala janbihi al ayman néew bi dañ ko war a def mu jëblu xibla daa di tëddee côté ndey jooram suñ ko dugalee ba pare wa an tuhalla arbitata kafnihi ñu daal di tekki lañu të lañu la ñu yeewe woon la nga xam ne mooy kafani yi lañ ko muure ñu tekki yépp wa an yaquula waadi'ahu mu wax ka nga xam ne moo koy teg ca xabru ba bismillah wa ala millati rasulillah ñi ngi koy defee ci turu yàlla di ko defee ci sunna yonenti yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu kon mbokk mi ngi noonu li fi'lihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam zalik ndax kat lu mel nii dañoo gisoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii la ko doon jëfe juróomeel bi an yuqatta qabru almar'a bi sawbin asnaa wad'iha fi qabriha su dee jigéen la ñuy dugal ci xabroom li gën mooy ñuy muur xabru bi ci kaw ba nga xamee ni ña ña yeeyoo dugal ko ci xabru bi ñoom dong ñoo gis jëmmi soxna sa amma ñeneen ñi ñoo baara leen ci sër bu ñuy muur ci kaw loolu lépp ngir ni lislaam sàmmi awray jigéen même bu dee daa faatu même bu dee daa faatu mi ngi noonu is kaana salafu yusajjuuna qabra al mar'a xaala wadiha duuna qabri rijal gis nañu salafu saalih mooy góor ñu baax ña heure bu ñu daan suul jigéen dañuy muur xabru ba suturaal ko loolu nag daawuñu ko def ci xabru góor loolu mbokk moo aju ca la nga xamee ni nii mooy suul ga beneen bind bi mu lay jàngal mooy waaw léegi suul nañ ba pare lan nag moo war ñu war koo jëfe mi ngi noonu fii ma yanbaghi ba'da dafn bokk na bu ñu suulee néew ba pare al istighfaru lil mayit wa du'aa'u lahu mooy ñu jéggalul ko ñaanal ko yustahabu liman xadara dafn sopp nañ ko fekke fa ñuy suule mbokkum julit an yastaghfira lil mayit mu ñaanal njéggal aji dee ji wa an yas'ala lahu tasbit fil mas'ala mu daal di koy ñaanal yàlla saxal ko ci jamono biñ koy laaj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam istaghfiru li akhikum e waay ñaanal leen jéggal seen mbokk mi wa sallu lahu tasbit ñaanal leen ko yàlla saxal ko fa innahu al aana yus'al ndax léegi ñu ñëw commencé di ko laaj te mooy bu mbooloo mi demee woon ko gannaaw rek yàlla dana ko nattoo wàccel ko ay malaaka malaayka yi laaj ko kan moo nekkoon sa borom ci ban diine nga nekkoon lan nga doon wax ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko defee kon la gën a néew loo ko mën a ñaanal allahuma ixfir lahu allahuma sabbithu yàlla yal na nga ko jéggal yàlla yal na nga ko dëgëral saxal ko mi ngi noonu mën sa ko wax ci lang yëpp kaana ya mi ngi noonu kaana yaquluhu inda alfaraaxi min addafn yonent bi heure bu ñu suulaan néew ba pare day wax mbooloo mi ñu ñaanal ko jéggal ak saxaay wa kaana baadu salaf yaqul lenn ci borom xam-xam yu jëkk yi daanañ wax allahuma haada abduka nazala bik ay yàlla kii di sab jaam la wàcc na ci yow wante xayru manzuurin bi yow yaay ki gën ka ñuy wàcc ci moom faxfir lahu wa wasi madaxala yàlla yàlla na nga ko jéggal ca yaatal dugguwaayam ca lii it mbokku mooy jëliwuñ ci sahabatul kiram nit ki faatu ñu koy jàngal alquran lañ jële ci ñoom mooy nit ki faatu ñu jéggalul ko ñaanal ko yàlla amma di ko jàngal alquran loolu ñeneen ñoo ko rafetlu gannaaw sahabatul kiram gannaaw ba nga xamee ni nii loolu paase na it tasbixul qabru aw taswiyatuhu mooy maase la qabru ba wala ñu daal di koy yemele yanbaxi an yusawi al qabru bil ard ye dafa yey ci nit ki buñ ko suulee ñu maase la ko mu yem ak suuf bi yépp mi ngi noonu li amrihi sallallahu alayhi wa sallam bi taswiyatul qubur bil ard yonent bi da doon wax nañ yemele bàmmeel yépp yemele ko ak suuf gayra anna tasnimul xabru jaizun lu dul na nag xabru bi ñu def ko ab jal bu ndaw loolu dagan la wa huwa raful xabru qadra shibr musannaman wastabahu ljumhur li anna xabra nabi sallallahu alayhi wasallam kaana musannaman mooy xabru bi ñu yëkkati ko lu tolloog shibr ba yaatuwaay loxo ni loole borom xam-xam yépp sopp nañ bu ñu suuleem néew au lieu ñu maase la ko complètement ñu yëkkati ko lu toll nii ba ku ñëw xam ne xabru bi fii la nekk ndax yonent bi alayhi salaam loolu lañ ko defaloon loolu lañ ko defaloon wala ba's bi wadi alaamati ala alqabr lu yu'rafa biha min xajarin wa nahwiha dara nekkul ñu jël benn màndarga def ko ci xabru bi ngir ñu xàmmee ne xabru baa ngi nii da doon xeer nga fay def wala lu mel noonu ay bant ak yu deme noonu li annahu sallallahu alayhi wa sallam allama qabra usman ibn mazun radiyallahu anhu bi saxra yonent bi alayhi salatu wasalaam bokk na mbokk mi jëkk a faatu ca madina muy usman ibn mazun ba ko yonent bi suulee ba pare dafa jël benn xeer mu ne xaaral ma teg ko sama xabru mbokk bi ngiree xàmmee ko bu ma koy ziyaar qaala ata'allamu biha qabra axi ma def lii ngir ma ci xàmmee sama xabru doomu ndey bi wa adfanu ilayhi man maata min ahli ma fi suul ña faatu ci sama njaboot loolu it day wane ni xabru mënees na ko wutal mandarga day wane it benn famille mënees na leen a dajale ca fañ leen di suul ca armeel ya loolu mooy gën a yomb ca ka koy ziyaar mi ngi noonu ca it mooy gën a doon loo xam ne nii luy dal xelu ñuy dund mooy suma dee ñu suul ma ci sama sama biir ay mbokk allahuma am na beneen muskila bu am mooy tableau yi ñuy bind di ci bind ay tur loolu da ngay gis ne borom xam-xam yu bari dañ ko bañ am na ci nag ñoo xam ne dañ ne armeel yi ni mu bëree nit léegi léeg-léeg boo bindul tur yi dana réer su dee ne jëmmi tur bi rek lañ bind amuñu luñ cay yokk naan diw nangam ak diw nangam jëmmi tur bi rek nga bind pour xàmmee ko loole da ngay gis ne borom xam-xam yu bujj yu bari yi mujj a ñëw nekk nañ di toléré loolu mi ngi noonu nekk nañ di di toléré loolu même ku mel ne ay Cheikh Nasruddin Albani mi ngi noonu ala kulli xaal fekk ne yow jubluwaay bi mooy tur bi rek nga ci bind sans commentaire bu dee loolu passé na mu ne it tahrimu tajsi taj tajsiisil qabr wal binaaw alayhi dafay xaraam qabru bi moo tax mu ne yuxramu ta tajsiisul qabr awil binaaw alayhi araam na nga suul sa mbokk ba pare rawatina bu dee place xeer yee nga dem nag ut peinture ñëw di peinture bàmmeel bi wala di tabax bàmmeel bi lama rawa muslim an nabi sallallahu alayhi wasallam naha an yujassas al qabr aw an yubna alayhi yonent bi tere nañu tabax ay bàmmeel tere nañu peinture ay bàmmeel loolee da ngay gis ne lu bari ci jullit yi tey xamuñu ko boo demee armeel ya lañ fa investir ci alal kenn xamul nu mu toll bal lii woykat ba doo wax rek ma yatafaaxaruuna xatta fil qubur nit ñi léegi dañuy puukaroo ba ci biir armeel yi sax ku nekk sa armeelu bàyyi nga yëkkati ko def lu dul jeex loolee mbokk da ngay gis ne bokk na toujours ñi ñuy delloo njukkal mooy kilifa ya yor armeeli ngor ak kilifa ya yor armeelu yoof mbelelaan bokkul ak armeeli yoof yi mag yi ñoom day seen armeel dañoo décidé kenn du fa tabax loolee mbokk sunna bu rafet la bu baax la mi ngi noonu ndax yonent bi alayhi salaam daa araamal ñu tabax ay bàmmeel loolu mi ngi noonu allahuma lu dool ñiy ragal ne bàmmeel bi kat su ma ko yëkkatiwul ay miir dañ koy maasale loolee ku koy def da garit sol ijtihaad nga koy def ak sa wàllu dàq lor bu dee ne lor ba ak ijtihaad ba yegg na foofu amma bu doon cosaan moom armeel yi kenn waru ko tabax soo demoon dëkk mi na Arabie Saoudite seen armeel ya buur ya gën a mag fa la ñu tëdd amul benn armeel bu ñuy tabax borom xam-xam yi gën a mag fa la ñu tëdd amul benn armeel tabax yépp a yem ak perte de vie ngay gis ay junni junni bàmmeel ñëpp a yem buur ak baadoo la ñëpp a yem te it loolu mooy mandarga lislaam kon mbokk loolu mooy aju ci wàllu googee mu waaw xam naa ñu mujje ci bii rek mooy karahiyatul julus ala al qubur yow mi nekk ci armeel yi ba tey yukrahu lil muslim an yajlisa ala ala qabri axihi al muslim aw yataahu bi rijlihi mi ngi noonu xam la yow julit day ara sib nañu nga dem armeele di toog toog ci kaw armeel mi ngi noonu walla ngay dox di teg sa tànk di jóg di armeel di jàll toog ci ar kaw armeel nag bokkul ak toog ci miiru armeel miir boobu wuru fa woon a nekk kon toog ba nga cay toog loolu moom bokkul ak toog armeel li ñuy bañ kay mooy toog ci fa ñu suul nit ki directement booy doxit nga xool bañ a nekk di jóg di ay néew di jàll yonent bi alayhi salaam da doon wax naan laa tajlisu alal qubur e way bu leen toog ci kaw bàmmeel yi wala tusallu ilayha bu leen julli di jublu ca bàmmeel ya wa qawlihi la an yajlisa ahadukum ala jamra kenn ci yoon demoon toog ca benn xal fa tuharriqa siyabahu fa taxallusa ila jaldihi moo nga dem ba xal wawee lakk sa yére ba lakk sa der day xayru min an yajlisa ala qabru loolu day boo xamoon moo gën nga dem di toog ca bàmmeel bàmmeel boo xam ne bàmmeelub jullit la loolee kon mbokk moo aju woon ci gunge ab néew ba baa ñu koy suul ba pare ca suul ga yal na yàlla rafetal suñu taxaw ca teeroo ñu njéggalam ak yërmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal jëlee néew ci dëkk yóbbu ci beneen dëkk li ñuy wax mooy dëkk ba mu faatoo su amee jullit ñu ko fa mën a taxawu la gën mooy ñu suul ko foofu su dee ne fañ koy yóbbu dañ ko fay yóbbu ngiree mu jege ay mbokki jullitam ñoo xam ne fa la cosaanoo ñoom seen jubluwaay du ne dëkk bañ jëm dafa am benn màggal bu ñuy màggal ni suul ci dëkk boobee kat daa gën ñu suul ko fii su boobaa bu dee looloo dañ naan loolu lu dagan la ci jullit ñu jël ko yóbbu ko fa nga xamee ne nii fa la nekk dëkk cosaanam mu jege fa ay mbokkam li ñuy tere daal mooy tuxal ngir dabu ji suuf waaye bu dee rek ngir lu yombal ay mbokkam loole nekkul lu ñu tere donte ne la gën te borom xam-xam yu bari daañ ko digle mooy fu ma dee nañ ma sul foofee loola moom la chaque mooy la gën ndax gis nañu ne ki di Abdourahman dañu Abu Bakar ja ba mu faatoo ñu mu àndaloon teg ko ci gileem indi ko Madina bañ ko indee Madina Aycha mu ne faatu gi de naqari na ma waaye nag mënoon ngeen koo sul fa mu faatoo rek jarul woon ñu koy jël di ko indi Madina loolee kon la ñuy wax ci loolu daal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw waaw jigéeni chrétienne boo xam ne dafa dafa ëmb mu faatu kooku du tee kenn du ko jullee ah am du loolu nga wax waaw kooku kooku kooku kenn du nekk di ko jullee moom julli nekk na faatu na borom xam-xam yi dañu am ay yenn wax ci ay mbiram doom bi mu yor doomu jullit la fan lañ koy suul doonte ne ne bokk na la ci gën a digg doomu mooy moom jëmmam moo faatu dañ koy suul fa ñuy suul ay mbokki chrétien am doomu jullit ba mu àndal moom du tey la nga xam ne mooy yiwam dana ko fa fekk am na nag ñu naan kenn du ko suul ci armeelu jullit kenn du ko suul ci armeelu chrétien dañ koy def ci diggante bi waaye ku ne xam ne ne ni suñu suñu loi yi ni mu tëdd léegi loolu nekkul lu yomb su ko defee daal moom bu dee ne dafa nekkoon ab chrétien faatu na dañ koy bàyyi ak ay chrétien am ñoom ñu dem seet nu ñuy def ak moom amma bu dee doom bu mu jur moom doom bi moom dañ ko jël yóbbu ko suul ko ci armeelu jullit ya wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw am na ci yenn borom xam-xam yu waxin naan dañ koy suul ci armeelu jullit ñi mais dañ koy wëlbati moom dañ koy wëlbati mu féete soow bu ko defee doom ñi mooy féete ponk penko waaw yooyu yëpp daal ay ixtilaaf la yoo xam ne bokk na li gën a mucc ayib rek mooy ab chrétien la ñu bàyyee ko mu de ak i mbokkam wallahu alam naam waaw bismillah naam naam
waaw bu fekkee ni da nga am ci tuyaaba comme ni nga waxee ni ci ma tañ ko bu fekkee ay nit yu bari la te ku nekk da nga am tuyaaba wala benn rek
ki nga xam ne daa fekkee ay néew yu bari ndax néew bu nekk day am tuyaabaam aha kay néew bu nekk day am tuyaabaam waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ki fekkee ñuy jullee néewub jullit fekke suulam dana am nangam la chaque ne kon ki fekkee ñuy jullee fukki jullit dana am fukki tuyaaba ca julli ga fukki tuyaaba ca suul ga loolee di ngay gis ne bokk na ci yiñ gën a yaakaar lool ci balance bi si penc ndax balance yoo xam ne borom bi nee na bu diisee àjjana nga jëm jàpp naa jabalu Uhud moom loo ci waaye am bu ko tegee sa balance war na koo diisa looloo tax ba ñu gis Abdullah ibnu Omar bi mu yëgee xadis bi dafa am lu ko métti lool ndax occasion yi nga xam ne moom la mënoon a am camu ko mu mu raw ko naam naam ala kulli xaal bismillah naam waaw dafay sikk sàkkat yi waaw waaw ki nga xam ne day sikk sàkka ndax ndox bi ko lal sobe la am du sobe loolee kenn du ko considéré sobe maadaama day sikk sàkka ne sobe la am du sobe loolee de su ko considéré muy sobe ki nga xam ne day sikk sàkka ne yére bi am na sobe wala amul sobe ku mel noonee da ngay gis ne su ko mënoon a changé mooy la gën waaye bu ko jullee dara newu ci ndax dañ naan al yaqin la yuzalu bi shakk ki nga xam ne wóor na ko ne yére bi moom laab na moom loolu moom wóor na ko gannaaw ba nag muy sikk sàkk ndax sobe dal na ci am sobe dalu ci kon dañ naan li mu sikk sàkk mooy ñàkk laab gi ñàkk laab googee nag du dàq laab ga bu doon contraire bi mooy wóor na ko ne yére bi daa sobewu muy sikk sàkk nag naan raxas naa comme raxasuma ko dañ naan ko sëñ bi lu wóor mooy sobe gi mooy wóor yaa ngi sikk sàkk ci raxas gi kon yére bi bu ko julli loolu la ñu wax ci atte yépp mooy lépp loo xam ne ni yaqin la dañ ne chàkk du ko dal waa ji nga xam ne da doon julli dafa jàppoon di di di ci tisbaar tàkkusaan jot na muy sikk sàkk man sama njàpp mi toj na am tojul tant que amul yaqin su ko neexee julli ci julli googee amma bu doon contraire bi moom jàppam daa tojoon léegi nag muy sikk sàkk jàpp nam jàpp ma dañ naan ko saa waay yaqin bi mooy njàpp mi toj na yaa ngi sikk sàkk jàpp moom jàppul demal jàppi loolu kon dafa bokk ci règle yi mag ci wàllu sharia mooy lépp luy yaqin sikk sàkk du ko teggi amma nag yow bu la neexee def ko ci wàllu peek waaye nag boo ko jullee woon it defoo lu xaraam wallahu subhanahu wa taala alam naam kon ala kulli xaal mbokk yaakaar naa naam naam waaw bismillah naam waaw waaw moo ko bi wax ne léegi ndax ku am jabaru chrétien kon kay ki ki nga xam ne du jullit dagan na ngeen sëy ci benn charte mooy mu gëm diine bu jóge kaw asamaan mu gëm diine bu gëmee diine mooy chrétien la wala juif la dagan na nga sëy ak moom problème bi ñu am tey nag rawatina suñu ndaw ñu nekk Occident bokk Occident quatre-vingt pour cent gëmatuñu diine seen bàyyi ay chrétien la ñu woon mais ñoom quatre-vingt pour cent wala plus ay athée la ñu gëmatuñu dara koo xam ne nag gëmul diine xaraam na nga sëy ak moom mais daal bu dee gëm ne ne moom ci diine christianisme la nekk mi ngi noonu gëm ne yàlla gëm ne Isa gëm ne alaxira ila axiri dagan nañu sëy ak moom bu dee diine yahud la nekk dagan nañu sëy ak moom waaye animiste ci ak bëri ci côté Casamance ak ay sunu siin ak yu demee noonu ñoo xam ne duñu ay chrétiens yi donte ne Dakar moom ku dul jullit rek ñu jàpp ne chrétien nga waaye ak bëri ñoo xam ne dañuy ñëw fi duñu ay chrétien duñu ay jullit ay animiste lañu ñooñu day xaraam nga sëy ak ñoom jullit daal ki muy sëyal mooy jullit na moom wala koo xam ne daa am téere bu mu gëm bu jóge kaw asamaan mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain